fidèles téléspectateurs de la RTT TV di am mbégte ak bànneex saa su nekk ah, di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñoo fi nga xam ne mooy manufacture des arts ah, nga xam ne moom moo di Dia Fashion Création mu daal di war solo guddi goo xam ne macha allah ñëpp pare ah, nekk li nga xam ne dina daggalaa di def défilé de mode tey nag ñëw moom ci manufacture comme ni ñu ko waxee gis ngeen invité yi nga xam ne ñu seen ñu ginnaaw am na ñoo xam tam ñu ngi ci yoon bi ak seeguñu waaye bu ko defee rek dañuy dugg si biir joxe suñu micro daal di waxtaan suñu invité yi nga xam ñoom ñoo fi nekk. marqué na borom tam ci réew mi. dëgg la ba fu ko tuddee ci réew mi ku nekk rek war nga koo mën a xam gis nga lu mel nii ndaw luy soog a door mënu ko lu mel nii ndaw luy soog a door mënu ko. faaw nga am ay jaar-jaar. dëgg la nga liggéey nangoo gëm sa bopp nangu ñu lay critiquer àdduna boo ci nekkee te kenn du la critiquer doo am dara doo avancé. dëgg la faaw ñiy bëgg ñiy bañ ñii naan dina am ak du am nga gëm sa bopp. su ko defee moo lay tax a yegg fi nga jëm. waaye nag ñu ngi dokkeel bu baax a baax pakit na. waaw ñi nga xamante ne nag ñoom la El Hadj da àndal ci liggéey bi. mooy ku ci mel ni Maman Fall. maman ku ci mel ni Oumy Kébé. rabbi ku ci mel ni Ahmed Dieng. Ah. ku ci mel ni Ismaïla Diop. Mm-hmm. waaye rawatina ki nga xam ne nag mooy euh, emprunté bi nga xam ne mooy Ahmed si di jàmbaar lool. Ahmed di liggéeyam. Ah. ndeysaan dafa mel ni gars yi ñu si de. ñu ngi egg xam nga Pape Mbaye bu mag bi la de xam nga Pape Mbaye tey moo war a jàkkaarloog ñun tey. alors. saf na ba nopp. Cannar Pape dafa bokk ci xale yi nga xamante ne actuellement. mu ngi def feu et flamme ici à macha allah. tous les dimanches mu ngi tëgg Chicken House waa ci Thion Mbour ba Saint-Louis keroog dimanche passé dañoo jaaxle ndax fu ne la ñuy jógee. wallaay ndeysaan. ñu toog dañoo toog a ay chaise jëlee jëlee jëlee jëlee ba mujj gi chaise fu ñu la woote dañ naan chaise jeex na. moo tax nag ci biir loolu Pape Mbaye woote ba su mag muy le treize bii. ah loolu xew pour la première fois artiste Thiessois ñeme tëgg esplanade bu sapeur pompier mosul am kon nag loolu nag bés la boo xamante ni képp kuy Thiessois da ngay ñëw jàpp ci. bul xaar bul xaar ñu woo la mais da war a ñëw jàpp ci ndaxte xale boobu tey war nañu bëggal ci kanam tudd dinañ xam kuy Pape Mbaye. léegi nag bu mu El Hadj Bakitou xam nga bés bu nekk dafa am ni ko dara jalee kan ak kan lañ dajale bis bi alaaji bés bu nekk dafa am ñoo xamante ne mënut a ñàkk ñu tudd seen ay tur wallaay ndeysaan bés bu nekk mënut a ñàkk mu am ku ñu ko ndayalee mbaa ku ñu ko bàyyilee ku ñu ko bàjjinalee mbaa ku ñu ko nijaayalee mënul ñàkk yëpp fa mu am ci bés bi ci xew mi nga bokk looloo waral ki nga xamante ne moo ci jiitu bokk na ci ceekuyaat yi ceekuyaat yi mu baax mi bokk na ci ñi nga xamante ne rek ay ndaanaan lañu yoo xamante ni bokk nañ ci bés bi. muy kan ki nga xamante ni moom mooy Marie Ndiaye madame Dia. Marie Ndiaye madame Dia di ko am jom ak kan. waaw moom itam ko am jom la. les jumelles soxna et madame Mbengue. ñaari seexu yàlla yi ñaari seexu yàlla yi xam nga su ma tuddee seex yi sama xel day dem ci sama seex yi wallaay ndeysaan fa tabaraka yow nag jàmbaar nga de jibee njéeme jàmbaar nga de yàlla na yàlla defal leen jàmm bëgg naa yeneen ñaari góor fa tabaraka la bu ma jógee ci ñoom dañu ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy PDG les délices de Soxna. ndeysaan moom itam mu nekk koo xamante ni muy Soxna Diarra. les délices de Soxna Diarra. les délices de Soxna Diarra moom tamit. yaakaar naa ni tey daal tey daal tey daal fa tabaarakalla daal. dinañu xam affaire yi ci kanam tuuti mais aussi. bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy Dieynaba Sy. Dieynaba Sy si Sawani. ah moom mi nga xamante ne bu ñu nee Dieynaba Sy nag suñu xel day dem ci Seydi Hadji Malick Sy. est-ce que xam nga ni Dieynaba Sy ak Adja ak kii El Hadj dañoo yàgg. dañoo yàgg ñoom ñaar. comme histoire de Cedra la ma nga ne di ñëw. waaw Dieynaba Sy moom daa bëgg turam moom itam mu baax mi suñu xel dem ci Sidi Fagui dem mi ci Diawar waaye Sadio ji sama waa wallaay Serigne Babacar Sy Malick la moo mantu vert. Eh mooy sourire légendaire gaay gaay bi. Eh moom la tubaab ne woon si vous ne connaissez pas Mbaye si je vais il est beau, eh. il est gentil, eh. il donne de l'argent, eh. mais il est très dangereux. loolu moom moo tax au sourire légendaire gars yi gars yi bi Alaaji Malick Gueye bàyyam. Roqe Ndiaye yaayam. moom moo ne woon su ma rusoon sama baay Maodo. mais attends attends ana taalibe Cheikh yi ma xool. ñu bëgg Serigne Baba. wala ñu bëgg Sidi Fage dem ba Miti Ndiaye. xam nga xam nga tey bés bi dafa yaatu. wallaay ndeysaan waaye sa waa ji sama waa ji. wallaay ndeysaan suñu waa ji seen waa ji. wallaay ndeysaan Serigne Saliou Mbacké. sawaaji nga xamante ne waaw sawaa jooju sama waaji sa waaji wallaay ndeysaan suñu waaji suñu waaji wallaay xaritu alxuraan laa ko tuddee ndeysaan moom itam 2007 lañu ko jooy wallaay ndeysaan nagatu yow demul daroon daroon daroon jox ci xol yi eh, eh. fala des moom Serigne Saliou Mbacké ah. dañu ko mës a fàtte dëggal li xel dem ci Serigne Mountakha ndeysaan lil Mountakha ay sa taxa ay sa suñu waa ji. bu ko defee nee naa la commencé bi dañu nuyoo rek. parce que da ngaa cof Serigne Saliou nag. dañu nuyoo rek non foofu. suñu waa ji da nga koo cof. boo duggee boo duggee foofu nga daanu te loolu lay bañ. ay jëf ala damay dugg nga daanu te loolu lay bañ. lay ndeysaan te xam naa ne soo naanoo di ma tegal micro bi dem te loolu lay bañ. <laughs> bu ko defee. bu ñu paree ci jënd ba sii. am na ñu koo xam te ne mu ngi tudd Haji Demba Diallo. Haji Demba Diallo bu baax moom bokk na ci euh, pareil bés bi. lundi sax yàlla mi ngi tudd sànq. yàlla bu baax. moom mi nga xamante ni itam. yàlla la gëm daan gëm yàlla gëm yàlla gëm yàlla ba tudd ko gëm yàlla. bokk na ci moom itam ki nga xamante ni moom mooy Ngone Pen mu baax mi. ndeysaan ñu koy sant bu baax di ko jaajëfal. Ngone Pen daa mel ni séen naa ko fi léegi. waaw waaye ki nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy madame Kébé. madame Kébé wax Adja Adja. ndeysaan moom itam ci la bokk. wallaay waaye Munas Faye. ak Faye bu dem Penda waagaan dugg dugg waagaan xaalis waagaan waagaan Kumba waaye ki nga xamante ni rek moom mooy Thiané Dia. itam ci la bokk. waaye madame Seck Fama Ndiaye moom itam ci bés bi la bokk. waaye Ndeye Awa Niang madame moom itam gis nga ci la bokk. tey ñooñu noonu nag ñoom ñoo fa seen a ñëw jàkkaarloog El Hadj waaw xale bi nag yàlla daf ko may wallaay ndeysaan ku mu kubal rek nga kontaan dañuy daal di préparé nag di jël ngay préparé ndax am na collection boo xamante ni ma war a ñëw sa jigéen sa xarit kan ko John Tado style ok oh. xam nga umu borom John Tado style ok oh. bokk na ci ñi nga xamante ni fii min ko oh. manufacture min na ko. sams min na ko. walaay ndeysaan feneen ak feneen ak feneen min na ko. walaay ndeysaan parce que bokk na ci ñi nga xamante ne dañu bàyyi xel ci li muy def. alors sur ce. ladies and gentlemen préparez-vous. ndaxte ñi ma war a woo léegi ñu ñëw. ñu ànd ceeg les mannequins de Dany ñoo fas yéene àndandoo ak ñun ñëw. s'il vous plaît si c'est bon au niveau de la régie ñu àndandoo. accueillir Momo, uh -huh. les mannequins qui vont porter les tenues de Oumou Diota de style OK sur vos applaudissements mais ñaan ngeen tàccu baax na les mannequins s'il vous plaît si c'est bon let's go voilà les tenues yes voilà les tenues Diota de style OK waaye tàccu na loolu waaye tàccu na loolu waaye. te ñoo bokk. collection été. maa ngi doon sàmm saalo kii. yes. waay waay waay tàccu na loolu waaye maa ngi doon bali. laa ilaaha illallah. dama ne lii daal waroon naa ko mën. Saada waroon na ko mën. waa kii sama xarit bi Saliou Thiaw borom nga bëgg waaw Saliou Thiaw waaw waaw te xoolal ma xale bi waay waay loxo yi waay jafe waay elle est là yes ça c'est ça c'est les collections d'été de Oumou Diotado style ok voilà Oumou on lui présente les collections avec les mannequins de Dani Voilà. Ici la manufacture des arts décoratifs de Thiès. xoolal ma xoolal ma. bu ma xoolal rek waaw. dama fees. dama ne xoolal xale yi waaw. sama xel sama xel dama ci mayo si. loolu la ko kii. waaye robo bala waaye tàccu na yàlla waay dama ne lii mën na dem góor de. tànn bi tànn bi waaw. ànd ak saaga bi. waaye umu yaay stylé waay. waaye umu mooy stylé waay. waaye umu yaay stylé waay. mais elle a trop de style comme ça. waaw elle est tellement adorable.

lii mooy kay fukki rek ça c'est l'été à Thiès ça c'est l'été au Sénégal voilà le mannequin de Dani qui sont en train de défiler sur cette belle scène avec cette collection de Doudou Diatta de Sanogo oh là là les bails du problème magal gi jege si la baay fàll journée waaw màggal gi jege si la Baye Fall fu ñu ne. dama ne màggal gi jege si la Baye Fall fu ñu ne. ala taal bi Serigne Touba yi dama ne màggal gi jege si la fu ñu ne. ñi nga xamante ne dañoo bëgg di sol si màggal gi. ñu gën a wóobu cosaanu saleté. quelle création quelle création. oh là là oh là là. lancer cette belle création mais dama leen di tamit waa lii lan la waa lii lan la waa lii lan la laa ilaaha illallah man nag xeet xeet yi moom dafa neex lool xeet yi dafa neex lool lii daal amul xam nga da nga ko fay li nga ñëw yaa ngi door a ñëw nag da nga dalay ñëw ko fay yaa ngi door a ñëw

laa ilaaha illallaah dama ne xoolal lan xoolal lan xoolal lan ma rob de saare bi xoolal lan ma rob de saare bi xoolal lan ma rob de saare bi waaye yow dama ne yow eh, xale bi dama ne da ngay joxe neex na ma ne sa rob de saare neex na ma ne. waaye man teetal yee ko sëñ Pape Mbaye Pape Mbaye daal Pape Mbaye Pape Mbaye daal Pape Mbaye Pape Mbaye daal mais Pape Mbaye Pape Mbaye voilà les collections de Guimou, hein, porté par les mannequins de Dani. Voilà. Lycée de l'art. Santé de l'art, sous vos applaudissements. Oh là là. Santé de l'art. Santé de l'art. tàccu leen la sortie finale. tàccu leen la sortie finale. avec le vainqueur de la ligue. voilà. le vainqueur de la ligue. et voilà. waaye loxo yi waaye loxo yi waaye loxo yi waaye tàccu leen yëngu. liggéey. waaye ñu ngi ma ñëw umu kaay doxantu. xaw ma doy jaar jaaral lii mu nga ñëw umu jaaral lii nga romb na ci cat bi nii am na espace. man kay dana la bay tuuti rek amu ñëwal waaye s'il vous plaît tàccu dana um ba mu yëg ci kaw seen. ay tàccu kekk ko mu gën a civilisé umoon nga. su leen ma ko waxee ba xam oh, oh. Staline ok. cette marque l'élégance qui est en toi cette marque que tu dégages cette marque que tu viens de nous présenter au monde c'est la classe et je confirme que c'est la classe. nga wax ni connexion bi mooy lan ak li nga indi mooy lan umu waaye tàcc na man kay dañuy waay suñu marraine rek fas yéene waxtaan ak ñoom ñu daal di suñu benn moom itam dañ koy daal nuyu baax a baax suñu marraine ñu leen nuyu. ñu leen di université El Hadj boole la ci Marème Namé tey nan nga gisee euh, guddi nga xam ne boole nañu la tey ci guddi gi. kontaan rek ne El Hadj sama rakk rakk bi ma bonk sax moo tax ma woo rek faa ma daw ñëw wallaay. ayca ban message ngay daal di lancer en tant que grande sœur te El Hadj sama sa rakk la. mooy El Hadj mooy suñu ñawkat mooy ñawkat bu ma gis ci Thiès boo xamante ne bu la daggalee rek nga kontaan macha allah. Mm-hmm. kon yàgg na laa kubal. wallaahi. te du ma fayeeku dërëm nag kuub rek lay def macha allah. ñu leen présenté wu ku ko naan garab ci kaw lay fekkante. waaw léegi nag bu mag nit poussé dañuy woo rakk yi. kii mhm. macha allah doomu Abdou la. bu Ba Grand Thiès. waaw léegi moom moo nekk ci atelier bi. oh là là waaye tàcc nañ na lu waay normal. c'est normal parce que xaalisu yi yow lañ leen jëntee nekk ta apprenti c'est normal ah, c'est normal aca ma bàyyi la nga nuyoo kenn ku nekk si tur sa sant quoi di siyaar ñëpp kenn ku bu mhm. yi moom suñu mag ju baax la mhm. lépp lu nekk instant mhm. man sama papa teer la sama turam teer la sama doon teer tey damay tooñ déedéet waaye loolu waaye dama ne dama ne bu sa baay dee tailleur sa turandoo di tailleur boo dalul tailleur looy doon waaw tàcc na loolu waaye tàcc na ma xale bi waay. mooy Oumou nag Issa dafa nekk man joo xamante ne mu jub baax la. waaw waaw dañoo yàgg si dund ci lépp. dañoo koy gërëm Issa xam nga. ñooy si ñooy si Mm. mooy Gosaakaay Sane yi. ñoo ah. essayé ay yeneen ni couleurs yu doon si màggal Tuuba ci màggal gi ci màggal gi. am na collection màggal ay collection isaan màggal. d'accord waaw ku si isaan bëgg rek moom moo contacté isaan. numéro bi ñaata la. mooy 77. 77. 918. 918. 13. 13 02. 77 918. 13 02 mooy numéro bi. pour ñi nga xam dañu soxla collection jaratul ñuy yóbbu naan ay dañuy ote soog yooyu woote leen rek ñu jox leen seen collection du noonu waaye tàcc leen ma xale bi mais maanaam kii dafa social ci Thiès euh, dama ko teemoon dafa am ñaari xale jigéen yoo xamante ni man Pakito ci groupe bi ma yor Ismaël Club bi ma yor dañu def social am ñaar ñoo xamante ni kenn ki dafa feebaroon nekk hôpital war a ko changer cœur bi defal ko cœur en plastique bi ñu ko war a def plus de 700000 keroog bi ma ko waxee ci rajo bi moom mi bokk na ci njëkk a jug ñu dem ba hôpital fekk fa beneen cas bu jugee Casamance bu gën a garaaw ñu ànd ko man ak moom toppatoo kooku ba kooku jëlal ko ambulance mu dellu ba Casamance bi mu demee jour Korité lay woote bi ñu laajte ba dog ba dog. di laajte papito umu ba gaañu ba génn àdduna tàcc nañ ko baax a baax mu bokk ci ñu social koo xamante ni ku social la dama koy wax tey plus de dix personnes ñu defal social moom mi moo ci jiitu barki Serigne Babacar Sy bu ko defoon dama ko wax kon nag tàcc nañ ko baax a baax a baax a baax yal na yàlla fay yiw merci beaucoup à toi Oumou yal na sa jàmm yàgg donc moom mu ngi noonu loolu sax faaw ñu wax ko parce que mënul bu nekk ci ñaw bi di ñawal gars yi rek social yi def ci suuf dafa am solo loolu loolu da ci am solo bu baax a baax Alaaji Pakito ah ah. waaye li ma seen fii ci xeetu ñaw yi nga xam ne ëmb créé na ko fii loolu dafa feste ay tax ñu fàttali leen numéro bi 77 la 918 13 ko waxee woon rek ba tey nga xam ne mooy ci défilé nga xam ne euh, Dia création Dia fashion na xam ne moom moo di suñu marraine d'honneur bi nga xam ne euh, bis moom lañ ko jagleel tey dañ koy daal di fas nuyu rek ko. madame Gis Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen ziar bu baax a baax. waaw maa ngi si jàmm baax. bés bi nga toogee euh, ci nga xam ne mooy Dia Fashion daal di indi carte invitation d'honneur ban mbégte nga ci àndal. waaw kontaan rek ndax El Hadj nekk nag lu yàgg te nag lu yàgg dëgg la. Mm-hmm. ayca lan nga mën a wax ci moom ban kàddu nga mën a sant ci nga xam ne moom moo di Dia Fashion fii. El Hadj xanaa baax rek yaru wax dëgg yàlla ba ma jàppee ba tey bàyyiwu ma def ma mag def ma lépp wax dëgg yàlla. di sant Modou bu baax a baax a baax Modou Seck moom mi ñu boole ñun ñaar wax dëgg yàlla rëccuma ci dara sant yàlla bu baax kontaan trop na ci sama rakk ji El Hadj yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura defal ko jàpp ci barke Seydina Mohamed. ayca lan nga koy ban message nga koy lancé en tant que ndaw mu nekk jeune nekk li nga xam ne dafa nekk ci milieu bi nga xam milieu bu metti la muy wàllum ñaw euh, ban message nga koy lancé rek en tant que sœur tamit euh, nga ja en tant que tam rak waa xanaa mu gën a góorgóorlu rek xam fi muy teg tànkam ndax nag mu ci yoon bi wax dëgg yàlla macha allah yàlla na ko yàlla fal cat na góorgóorlu bu baax a baax a baax rek. waaw di euh, soña di la sant bu baax di di sant di Seck sama borom kër yal na ko yàlla defal jàmm talafal ko cat di ñaanal sama doom yi tamit yal na leen yàlla defal jàmm ma dund ba leen di muur ñuy sëy di sant na kenn si man muy nguy faama mi wax dëgg yàlla ndax du ko neexoon ba ma ko ko waxee mu ne ma damaa xaw a tawat waaye dafa bàyyi lépp ñëw ànd ak man maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm ak sutura yal na ñu ko yàlla boole ñu ñëpp yow tamit yàlla defal la jàmm defal ñëpp jàmm. maa ngi kontaan ci sant ñëpp di gërëm ñëpp. alors la soirée euh, son plein il euh, a beaucoup de monde euh, du beau et justement nous en profitons pour faire un peu euh, le tour du côté de chez soi et là nous sommes avec madame Dione qui va se présenter aux téléspectateurs bonsoir madame alors présentez-vous à nos téléspectateurs bon suis Ngouy Fama la Linguère madame Dione Euh, directrice commerciale euh, ressources euh, directrice commerciale en même temps directrice ressources humaines. Alors vous êtes très très impliqué dans cette dans cet événement, cet événement euh, de mode. Parlez-nous un peu de votre implication dans dans cette organisation. Euh, bon, je ne suis pas invitée, mais je suis venue accompagner Madame Seck, euh, la femme de mon PDG, Madame Seck. C'est je suis juste plutôt. Mais on vous retrouve très souvent dans les soirées de défilés de mode. Mais moi, tu sais, moi j'aime la mode. Euh, c'est pourquoi je suis venue accompagner la dame, la grande dame, euh, Madame Sek. Euh, en même temps, je suis ravie. Je suis ravie d'être là. Tu sais, mon PDG, Moud Sek, il aime tellement la mode. C'est pourquoi je suis fière d'être ici plutôt. Alors, lorsqu'on parle de, de mode, que pensez-vous de la mode tiessoise Bon, actuellement, euh, la mode, actuellement, la mode a tellement évolué. Et euh, pour vous, quel est votre euh, quel est votre modèle préféré Par exemple, qu'est-ce que vous aimez porter au quotidien Qu'est-ce que vous aimez porter dans les soirées Vous aimez les tailles basses, les grands boubous Qu'est-ce que vous aimez euh, j'aime les tailles basses. mais pour les soirées, j'aime bien me porter bijoutier, euh, Je me sens très bien avec euh, et bijoutier. On remarque également qu'aujourd'hui, dans la mode, même thiessoise, il y a beaucoup de femmes impliquées dans la mode à Thiès. Actuellement, la mode a bien évolué ici à Thiès. Euh, tu vois, les femmes, euh, maintenant les femmes euh, bien, habillent des grands boubous, euh, des grands des, des, actuellement, le monde a bien évolué, surtout à Les dames s'habillent très bien. comment trouvez-vous euh, cette soirée euh, cette soirée très, bien. quand même, euh, je suis à table avec la famille ATT avec Madame Sec. Je suis à l'aise. je suis très content. Merci beaucoup, Madame Dion. <laughs> L'ambiance est au beau fixe et tous les invités sont comme ça, aussi joyeux, aussi ravis que Madame. Madame Dion. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est une très très belle soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. un grand coucou à, Bafou Mbeng, euh, un grand coucou. Merci beaucoup. C'est un bon monsieur euh, Bafou. Merci beaucoup Bafou. maa ngi leen di fay. maa ngi si jàmm bu baax. tur madame Kébé. tey daal lay marraine bis bi nga xam ne macha allah ñu woote ko fi ñu manufacture des arts décoratifs ban métier nga ci am ak bu ñu annuler carte invitation bi noo ko dundee. ah organisation bam niñ ko defee macha allah te di wax maag El Hadj moom dafa yàgg depuis xale ba tey ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp maa ngi koy ñaanal nag bisam bii tey lu mu si bëgg yal ko yàlla ak njortam. xanaa moo la sàjjal li nga génn nii. ah moo la sàjjal fi nga génn nii. waaw waaw lu ma lu ma sol lu nekk rek moo ko sàjj même ñii liñ sol lépp moom moo koy ñaw. jéem moom ak jéeg moom si kaw si kanam rek. ayca ban message nga koy lancé ak loo koy ah El Hadj maa ngi koy lancé mu gën a góorgóorlu nag dolli li muy góor gaa mu ngi góorgóorlu mais na gën a góor góorgóorlu di ko ñaanal aussi lii muy def bu mu ko bàyyi. yàlla na dund dund ba keroog mu koy defee grand théâtre ñun ñëpp ñu koy wuy ji incha allah te di ko ñaanal nag bésu jàmm ak salaam bu boobaa dina xam ne ay jigéen nag mu ngi fi doom. ñu lay fay. maa ngi ciy jàmm bu sañ-sañ merci ay ja tey nag ñu daal di ñu gis la tey nga xam moom mooy di euh, programme bi nga xam ne El Hadj na ko fii ci Manufacture de Arts Décoratifs ñu gis ci tey sa teewaay ñu bëggoon a xam loolal moo ko waral waa lu ko waral mooy Ngoné Pène moo ko waral waaw marraine bi moom moo ko waral waaw mm-hmm. moom laa àndal ak ñun ñëpp ñi ay jabaram lañu kii magam la man moom waa xaritam la waaw macha allah. Aïcha ban yëg-yëg ngeen daal di am ci mbéyus mi nga xam dañu leen kaa tuddee ah yëg-yëg bu rëy ndax El Hadj ku baax la ku yaru la respecté na ñun ñëpp na ko ba taa la ñuy waxtaa respecté nit ñi baax yaru loolu lañ ko xamal wax dëgg yàlla ndax fi mu ne ñun ñi xam nga ne ku ñu yëkkati rek am na lu tax waaw mais bu yaruwul woon barke Serigne Touba bu ñu yëkkati duñu ñëw waaw mais yarut te moo ko waral at baaxam moo tax xanaa rek yàlla yokk ko mu dem ba ci kaw a a kaw ci barke Cheikhul Khadim waaw yàlla yokk ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñun daal réussite rek la ñu bëgg mu réussir bu baax a baax a baax ndax ku rafet bu baax la mën na ñaw te bëgg na li def tamit e. am na alors toujours euh, dans la même euh, soirée soirée de gala de Dia euh, Fashion nous faisons un peu le tour comme ça et justement nous sommes avec une personnalité bonsoir. bonsoir madame. alors présentez-vous à nos téléspectateurs. je suis venu pour regarder le, défilé parce que moi je suis styliste je m'appelle Lébou Ndoye tout le monde me connaît partout je suis styliste international pour accompagner mon ami là. Et justement, vous êtes un, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes une personnalité, vous êtes un nom très connu dans le domaine de la mode à Thiès et au Sénégal. Alors, que pensez-vous de la mode thiessoise Bon, la mode thiessoise, ça, ça, ça, avance, ça avance bien parce que les jeunes, ils sont en train de débrouiller, de faire des formations pour faire des créations et tout ça. Donc ça avance bien, ça avance bien. Et justement, en matière de formation, vous vous formez également euh, des, des, jeunes. Vous formez des jeunes au métier de, de de créateur, de, de, Dites-nous, comment vous est venue euh, l'envie de, faire du stylisme Donc je suis styliste de métier. En, même temps, j'ai créé une centre de formation professionnelle qui forme les élèves euh, qui sont dans la rue, je les récupère pour les former pour les accompagner sur le tourisme et restauration hôtellerie. Donc effectivement, on peut dire qu'en dehors de la formation que vous dispensez euh, aux jeunes, il y a aussi derrière ce côté social, puisque vous, euh, euh, formez des jeunes qui, sont dans la rue, qui n'ont rien, donc il y a un côté pour aider le gouvernement du Sénégal. Parce que je suis, jeune, en plus j'ai créé une école, j'ai investi beaucoup d'argent sur l'école, Bon, l'école c'est reconnue euh, reconnu aussi par l'État. Parce que les, les formations c'est 3 ans. Si tu sors de formation, je te donne un diplôme d'État. En plus, euh, il y a des bons ici qui forment les gens sur, euh, sur coupe, couture et restauration hôtelier. Donc, euh, les autorités de Thiès, là, il faut qu'ils nous interrogent, qu'ils nous accompagnent beaucoup aussi, parce que c'est trop dur pour nous. Donc, on, se débrouille pour former des, des jeunes pour qu'il avoir des métiers, pour diminuer, diminuer aussi le chômage. C'est ça quoi. Et euh, que pensez-vous donc de cette soirée organisée par euh, un jeune chez soi, Dia Bon, le jeune qui organise ça, bon, c'est mon ami, je l'ai accompagné beaucoup. Je les conseille beaucoup. Donc je suis venu aujourd'hui pour accompagner. les musiciens de Pape Mbaye sont en train bon, de s'installer et tout. waaw en tout cas tey bii yow sama t-shirt bi. xam nga kii sama t-shirt bi ak sama jean bi mu ngi ci affaire bi. xam nga kii bu ñu paree fa la ñu sumee ko pour mën a fecc xam naa ko. kii kii papa da ngay bàyyi borom xew mi <laughs> alaaji dafa laaj rek bu ko defee léegi nag sec. soo paree ba pare rek. bu dee élage ja pare na ñu préparé wu ngir mën a xam fi nga xamante ne fa lañ jëm. ayca waaye nag sànq dama tuddoon sa waaj yi. nga nga bàkkal ma sa waaj yi nag. Eh. suñu waaj yi sa waaj yi seen waaj. ki nga xamante ni yaakaar naa ne ndongo yi dañu koy jooy. Eh. alxuraan da koo jooy. Mm-hmm. su keroog ba la ñu koy jooy. Mm-hmm. keroog laa tëdd ba deux heures du yuuxu yi ba gën a laajte ne xew naka te waa ji na. moom moo fi desoon. ñu yaakaaroon ko lool. bëggoon ko lool. moom Serigne Saliou Mbacke borom gerte bu rëdd la nga yaakaari sa jun bi. moom itam moomoo sa waa ji. ay ca borom ko toj jëriñ borom jàpp na xabaar borom lakan borom dookaa borom umu xuraa yaakaaru Serigne Béthio Mbacke kulli ab sa njaay beccu al baabu moom bu sa ab sa njaay ñoxor ab sa njaay bu sama daari ab sa njaay seexul xadim baayam balay sa buri sëriñ Mbàkke maaram rek maam Mor Jaara ak sëriñ Cerno Ibrahima waaye ala ba sa man sama yi bàyyi ba sag baaram am ah, mu di changé la mu di changé la seen man futa ak ganti gànnaar koo koy bàyyi sëriñ Saliou waaye ala waaw taalibe sëriñ Tuubaa fa la ñu ne mu di changé la am na de <laughs> mu di dinaa ko xamee de soq na ma ku mënul jóg rek sa loxo bu feexee rek joxal kii rek mu ñëw bu sa loxo mooy féexul rek joxeel kii mën ngaa joxe ah. Koundou <laughs> Diaw soqe na ma de. ah Tidjane moo la soqe. Fatou doo ñëw. ah Fatou. ànd ak Saalum ma jigéen wey ne àggaay wey ne bu bu bu bu kon doo ñëw. Ah. Ba doo ñëw. la ko loolu lu ñu ñëw ci lañ bokk créé tàccu leen ma ko. lii quoi mi ngi am ba tey ah. mi ngi am ba tey ak ay catalogue rek yooyu. yow bu njëkk wax nga dëgg fa lañ daan xoolee modèle yi. am na mag taala. catalogue yéen nañu woon. ay catalogue bay wax nga wax nga lu yàgg catalogue. sa maam daan na ko wax jot si li ma catalogue googee. wallaay day sax am na sa jàmm yàgg sama xarit. da ki too fuñ tëm. ah. ah gars yi di. ala wala ma xool. gars yi di yëkkati de. baat bi baat bi noonu. dana dal wujje. waaw ba léegi ñu lay wax ngeen tubaab tubaab lu mel ni ku nekk. dégg nga euh, bu bi da ngay tëb ana ñaareel yi. <laughs> yéen nag c'est que man maa ngi fay. parce que ñaareel yi bëriwul. xaaral ma laaj loolu bëri nañ de. ah. taxaw. ana ñaareel yi. amul. Ah, eh, léegi taxaw de. defee ci suñu marraine rek dañuy daal di ñëw ci nga xam ni tamit suñu invité lañu ñëw nañ tey wuyu si ki nga xam ne moom moo di El Hadj ci guddi gu am solo gi nga xam ne woote na ko fii ci manufacture des arts décoratifs euh, madame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tur bi nan la. Fatia di ñëw tey ci programme nga xam ne El Hadj woote na ko ñu bëggoon xam sa déplacement tey fii lan la. waaw El Hadj day sama rakk ju baax. bu respecté magam jox magam jël macha allah. moo tax ma ñëw tey ci bésam bi. na nga gisee tey bés bi nga xam ne woote na ko fii ci Manufacture. waaw ah, bés moom macha allah yàlla na def jàmm incha allah ndax nit moom bu ko yàlla fayee xolo moom dem naa ne macha allah dina si def jàmm soobee yàlla. ayca ban message nga koy lancé en tant que grande sœur. waaw di ko wax mu góorgóorlu rek ñu ci ginnaawam bu mu bàyyi benn yoon. te dinañ ko jàppale bu baax bu góor la rek incha allah dina dem. a chéri ñu ngi leen nuyu. ñoo ngi fees maa ngi leen di fay ça va. tur bi nan la. Ngone Pen. Ngone Mbaye ñu tuddee la bés bi. Ngone Pen Ngone Pen tey ñu tuddee la bés bi nga bokk ci marraine yi ndax nga gisee loolu ak tam ba yëg-yëg nga ci daal am. xanaa kontaan rek. kontaan torop torop sax ndax El xale bu yaru la. dañu nekk moom te dara ñaawul. ànd bi yàgg na depuis suñu yaay yi la woon ba léegi tey ñu ñëw suñu place yi jàkkaarloo muy ñëw may defar bopp yore salon mais ku mu ñawal moom man maa la war a solal baax na yaru na am na jàmm amula kenn xaar ma yàlla moo tax liyam man du ma génn sax guddi mais lii lim lii nii li muy a tax ma génn ànd ak sama délégation kontaan torop si moom nag lépp lu mu fi jëlee rek yàlla nañ njiglaayam yàlla na dem a dem ba am ay ciseaux d'or loolu daal lañ koy ñaanal. ayca bala message nga koy lancé en tant que grande xanaa mu góorgóorlu rek fi mu teg loxoom moom su ko bàyyiwulee dina romb fii fi mu teg loxoom su ko bàyyiwulee day romb fii. comment trouvez-vous la soirée. Eh, je félicite Elage pour cette belle soirée. et aussi on est là pour l'accompagner et tout. Apparemment, vous aimez beaucoup la mode. Qu'est-ce que vous aimez dans la mode Comment vous aimez vous habiller J'aime beaucoup la mode parce que moi-même, je suis coiffeuse. Et là, c'est mon taille préféré parce que toutes les tenues que je porte, c'est lui qui fait. On dit souvent que la, la coiffure va très très bien avec les vêtements. Quand vous êtes bien habillé, c'est bien d'être euh, bien coiffé. Oui, puisque je peux dire que nous tous, entre les, les tailleurs et les coiffeurs, nous sommes de la même famille. Et euh, là, nous sommes avec euh, une dame, l'une des marraines de la soirée euh, également. Bonsoir. Bonsoir, madame. Présentez-vous. Bon, je me nomme Khadija, je suis la sœur de Elage. Nous, nous avons le même père. 1302, mon numéro B. Vous êtes donc venu soutenir votre frère. Oui, oui, je suis venu soutenir mon frère, mon frère de sang et mon ami aussi. Mhm. Alors, comme lui, euh, vous aimez, la mode. Quand on vous regarde, on vous aimez beaucoup la mode. En plus, je, suis avec Elage depuis toute petite. C'est lui qui me fait des, des, des et tout. En plus, c'est grâce à lui que j'aime aussi la mode. C'est lui qui euh, que vous Bien sûr, bien sûr. Tout ce que je porte, c'est lui qu'est-ce que vous avez envie de, dire euh, ce soir à votre frère quand vous regardez cette soirée Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre frère j'ai juste un message à euh, lui lancer de lui dire que El Hadj moi ta sœur qui te dit focus et va va de l'avant parce que tu peux le faire tu peux bel et bien le faire mm-hmm. parce qu'il faut dire que c'est Dia Fashion c'est un c'est un jeune créateur qui fait de très très belles choses et qui a invité tout ce beau monde pour assister à ses pour voir ses créations bien sûr non non c'est la je pense que c'est la troisième édition oui j'assiste tout tout

je vais aller vers j'affectionne pour qu'il puisse me faire ça. bu ko defee léegi nag. et que pensez-vous de la ah, mode euh, de la mode thiessoise. Euh, mais bon je vois que les filles thiessoises eh. se. se font belles hein se font belles il y a beaucoup de tailleurs il y a beaucoup de jeunes tailleurs thiessois qui se qui partout dans le Sénégal wax dëgg comme ni ñu leen ko waxee woon rek ba tey la El Hadj Euh, woote fii nga xam ne mooy manufacture des arts décoratifs ñu daal fii fekk nag suñu benn tata yaa ñu boo xam ne macha allah mu ñu ko romb te waxtaan ñoo moom chéri lay nuyu. maa lay fay. tur la. Xadijatu laa tudd. xarit ñu daal di gis tey ci programme bi nga xam ne El Hadj woote na ñu bëggoon a xam tey sa teewaay lu ko waral. war a ñëw rek. ndax El Hadj mën naa ne bi muy jàng métier sama kanam la ko jàngee. mu bëgg métier bi nag ci def lu rafet. mu moo si mujjee ñëw mais li mu si def rafet na macha allah tax taxaw ma teew fi dama fee ñëw ñaari yoon dama fee ñëw ngir El sama doom la ñëwal fi sama yaay ku ñëw wax gas Samb dafa pare woon pour ñëw mais dafa am lu ko tënk moo tax mënul ñëw macha allah loolu moo ngi fi indi woon tey. sañ-sañ bi rafet na. merci. nan nga gisee El fii ci manufacture des arts décoratifs nan nga gisee tey programme nga xam ne woote na ko. programme bi dañuy ñaan yàlla mu mel comme ni mu daan mel rek ndax tey da ko doog a def yàgg na ko def te loolu bu ñu ciy jógee mi ngi ciy jëlee ndam gu kawe kon bi dañuy ñaan yàlla mu gën a am ndam ndam bu sedd guy incha allah macha allah. Aïcha mi ngi noonu comme ni ñu ko waxee rek ba tey ñu ci défilé bu am solo bi nga xam ne El Hadj Dia woote na ko fii ci manufacture des arts décoratifs. ma lay toogal sama xarit sama góor sama doomu ndey sama lépp rek euh, muy Sadio Diaw bu baax bi mi ngi noonu rek kay daal daal koy nuyu Sadio ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay si moom. maa ngi sant alhamdulilah. daal def nga de sañ sa nga. waaw gis nga jàppale sama doom ndey rek. li ñu noonu nduru na ko ba tax na tey ñi daal di ñëw tey ci bis bi nga xam ne mooy euh, El Hadj woote fi ci manufacture euh, nan nga ko gisee tey ak plateau bi nga xam ne def na ko fii nga xam ne mooy ci biir manufacture. waaw gis nga El moom nit ku baax la yàgg naa ko xam ñu bokkoon ko yàlla def muy doon ndaw boo xamante ne macha allah ku gëm boppam la li muy def mu koy dund waaw macha allah daal événement bi tamit doon événement boo xamante ne yàgg na koo bëgg su ma jumul bi mooy troisième édition bi mu koy def moom muy lu am solo loo xamante ne moo tax tey ñu ba dagg suñu tey yëpp ñu ne ñëw teew jëmmal bës bi loolu daal mooy suñu teewaay tey ci bés bi. ba yëg-yëg nga am tey ci bis nga xam ne El Hadj na ko en tant que waaw am mbégte kontaan na bu baax rek mu doon suñu jeune frère boo xamante ne euh, bu organisé lii tamit day doon euh, mel ni daal ñu ñoo ko organisé daal ñu ci am mbégte bu baax kontaan ci moo tax daal lépp luñ ci mën rek def ko ko ci bés bi daal moo tax ñu def teew euh, di ko daal bu baax di ko xamal ni fu mu teg tànkam foofu la ñoo ngi ci ginnaawam daal. message nga koy daal di lancé. waaw mu gën a góorgóorlu rek xam ne li muy def. Eh, yomb na yomb ndaw la te moo ngi ci daal mu focus daal te xam ne daal moo ngi ci yoonam bu mu déglu kenn waaw te am na ñaan waaju te loolu ci ëpp solo waaw yaayam ñaanal na ko ay famem tamit kazalika macha allah daal nitu nit ñi la daal macha allah ñoo ngi koy bu baax ne ko mu gën a xam ni ndaw la te moo ngi daal na topp yoonam bu baax. Alors nous parlons de mode, nous parlons avec une jeune euh, créatrice qui a d'ailleurs fait l'ouverture de cette euh, grande euh, cérémonie riche euh, en couleurs. Bonsoir. <laughs> nous avons vu de, très bons modèles passer, un beau style passé. Présentez-nous votre, collection et présentez vos téléspectateurs. bonsoir, je m'appelle Omo Koulibaly alias Diontado. Je suis styliste. J'ai fait ma formation ici à la CCT, Académie Coupe de Babacar Gueye. J'ai fait aussi euh, des stages euh, chez Bafou, chez Omoro, ce qui certifie le style que j'ai amené aujourd'hui. Mm, mm. On a justement vu que c'est un style très jeune, c'est euh, décontracté, il y a beaucoup de couleurs, c'est facile et léger à porter et c'est assez original. C'est à la mode. C'est à la mode, c'est que du wax, du jean, à la base. Je, je, travaille aussi beaucoup du wax parce que j'aime le wax. Oui. Et euh, votre, euh, vos, vos, créations sont, euh, sont destinées à quel public Des femmes dont l'âge varie de quel âge à quel âge Des femmes, les hommes aussi, même les enfants. Je fais partie des stylistes qui ont fait faire défiler des enfants de 2 à 5 ans. début, je fais partie des premiers stylistes. J'ai des mannequins qui ont... Aminata, par exemple, elle a 7 ans. Il y a aussi <laughs> Omar, il a 10 ans. J'ai des mannequins enfants, donc je fais unisexe, enfants aussi. Mm -hmm. Et vous avez participé donc à cet événement, vous avez euh, euh, l'ouverture. Comment trouvez-vous euh, cet, événement et comment trouvez-vous votre participation Machallah, pour, une première fois, ça va, Espérons que les éditions prochaines seront meilleures. Mais ça, ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Pour une première, bon, à lui. il m'a contacté parce que peut-être qu'il m'a senti, il voulait que je participe à son événement.

Grif kii war a dugal Papa Mbaye wala kii dugal El mooy Papa Mbaye c'est le phénomène xale bii di ñëw c'est le phénomène de la musique sénégalaise boy bii di ñëw mooy xale bi nga xamante ni depuis des siècles des siècles son grand-père intitulé Abdoulaye Ndiaye Sall dafa defoon lu rëy en la njëkk a lekk xaalisu aar Afrique booy bi di ñëw moomam Abdoulaye Ndiaye cosaan moom la ñu yóbboon Paris premier festival mondial des arts nègres Léopold Sédar Senghor moom la choisiroon waaye tàccu leen ma Papa Mba xale baa ngoo dugal El Hadj ñu dem li di géeju mbëggeel la sewu man mi balak jëm far naan ca ndox xorom si na ma xàtt mu far tawat ma te man dem naa ci docteur dem naa feneen mënu ma faj lu dul xale bi ma nam sama damba sama damba damba damba damba sama damba sama damba teew yow yaa may fekkay nana naa chéri xale bi suma doon garab yaay dox mi may alors aljana nga doon sama jabar nga doon sama urul ayni shiriko ko bande sama tuuti waroon di masari gaay jege

yéene mooy ma takk la dëkkal dëkkoona xam naa ni yow mënu ñàkk ci sama dundu waaw xale bi tukulóor bi ela ja kay dara ja raja gurgu ja ja ja sa tulin ela ja xale baa ngi nii mu ne waaw wow wow wow lu mu ñëwul baaxul ci dëgg dëgg hélas ci dëgg dëgg yow hélas yaay ñawkat piir lu ñëwul baaxul elal jaxu mooy ñawkat piir yatu bi si ay ñaanal am nga ñaanu yaay am nga ñaanu baay yow doxal ku la bëgg te bëgg ku la bañ lu mu lay wàññi yaay ñawkat piir am nga ñaanu yaay

kii mooy ñawkat ja tukulóor kon elas ya kon dina jiin waaw datil madina gi rekki datil gi dama raw rekki datil jatu couleur datil kon elas ya datil madina gi xale ba ngi ni yow elas ya kon tu couleur datil elas ya datil madina gi xale ba ngi ni yow elas ya jatu couleur datil kon elas ya datil madina gi xale ba ngi ni yeesa ba couleur kon elas ja yi datil man dina ji elas xale ba ngi di yow da ngay ñëw elas datil ja tukkuloo datil man dina ji yi xale ba ngi di ki dafay sa tama bi ku koy tëgg yow elas ja sunu tama xol day yaaj yi ji daf ma fekk man ma taxaw mu ni ma noom naa la ndekiti ey saay saay la ku da damax wa mu ñëw sunu kër laaj ma kuy sama yaay ndekiti yoo elas saay saay la ku da damax wa ñëwaat sunu kër laaj ma kuy sama baay ne kitiyo saay saay la ku dee de wax saay saay la saay saay la jongoma doxalat jongoma wiyo saay saay la saay saay la yow di kol hey yow di tiyo waaw ay jëleen ku bëgg hélas yëkkati sa loxo ku bëgg hélas loxo ci kaw yëkkati sa loxo loxo ci kaw ku bëgg hélas loxo yëkkati sa loxo seen loxo ci kaw hélas jawa ngi ku bëgg a hélas waaw kat ay julit kaay hélas gi xale baa ngi nii di xool leen ko dëkk moom xanaa lii aw da ko xas sama mat dootoo tànn lenn may may jànjal hélas ja ñëw da ko xas sama mat dootoo laal lenn may may jànjal ki daw rama jara ga dami bax wuraja wi saab ay wuraja waawa Elhadj jàpp yéen ko bëgg Elhadj ja yëkkatil Elhadj gi xale baa ngi nii xale baa ngi jàpp xale baa ngi xale baa ngi xale baa ngi xale baa ngi nii xale baa ngi ay ñëw dag xas ba mat dootu di tànnati lenn muy may dandal gi jabax rabata da ngi dami ay waayu ràcc ay gumba ràcc Elhadj yàq Marie Ndiaye la kooku sama yaay la yow xale bi waaw sa tama xol bi ku koy tëgg yow Ernest yow sama tama xol day yaaj yi dax dàccu leen koy nii soxna ba noppi yow booy dàccu daal day nii kenn du sa pali dàccu day nii soxna ba noppi jey na ba si si saawa jey na ba si soo yëngoo mu neex yow jey na ba tey rek mu neex. jëy na ba si sama waa jaa ngi nii. yow jëy na ba tey rek mu neex. jëy na ba si soo yëngoo mu neex. yow jëy na ba tey rek mu neex. yow dikkal dikkal dikkal sama waa jaa ngi nii. yow jëy na ba tey rek mu neex. jëy na ba si soo yëngoo mu neex. mbokk yaayu El Hadj Diagne sama waa jaa ngi nii. yow jëy na ba. kër gi ma rombal bergom daa ko jëm mi nam jëm seen ma yaaya boy papa mbay sam na bot lay la elas ja xale baa ngi kenn du sampali jaw kan baa di saf na ma noppi tacuuli li dikkal wax leen ko jeyna ba si yow jeyna ba dama lay jiit yow tac dama yette elas ja yow génn ma si si saa tey ma di la jombe génn ma si bokk yaayu hélas dama lay jombe ii génn boo ma nu gat mat saata foo dëkk ma dëkk foo foo dëkk foo faa nekk ma yow génn ma si bokk yaayu hélas dama lay jombe i jey na ba ma dugat sa yettu man sanaat si saa waate yow jey na ba si jigéenu hélas ja lay jombe i jey na ba ma dugat sa yettu man sanaat foo dëkk ma dëkk foofu foo na ba si mbokk yaayu hélas dama lay jombe i jey na ba ma dugat yaayu hélas moo daw foo dëkk ma dëkk fa yaayu hélas mu ndaw yow jëy mu ndaw jëy na ba tey rek mu neex yow Adja soo mu ndaw tey rek mu neex yow Adja soo yëwee mu neex yaayu hélas mu ndaw tey rek mu neex madame Kébé soo yëgoo mu neex yaay yaay las mu ndaw mu neex kebe jugo yow suma waajaa ngi nii xaritu elas tey mu neex yow ajaa soo ñëwul mu ñaaw doomu yaayu elas dikkal dikkal mu neex si sawaane yow pambay lay way kebe jugi ale ki pam may da koy way li ñu war ci doomi Gambia gi ci yow pam da lay way mbokk yaay elas ja suma waaji suma waaji yo pam way pam da lay way maar yaasin mi sa bigi xoma fu la daan daan di jaar yow daal yow ku nam sa séeri kuy aawoo yow de mën noo ñaaw yow jaabu yow tey ku ci bëgg sëriñ Babacar ana Tijaan yi yéen de jaayu leen kon madame Kébé madame wax leen madame Kébé ni leen madame Kébé kon madame Kébé wax leen madame Kébé kebe juga ale madame kebe madame kebe yow soo ñëwul mu ñaaw hey madame kebe tey rek mu neex yow madame kebe soo yëngoo mu neex hey madame kebe tey rek mu neex jigéenu elas ja sama waa jaa ngi nii hey madame kebe tey rek mu neex madame kebe yow soo ñëwul mu ñaaw hey jigéenu elas ja madame kebe tey rek mu neex jigéenu elas ja soo yëngoo mu neex ma dam kebe biige Maria Sin yow xam nga mën noo yow papa may woyal lii ku nopp sa séeri jaayul kuy aawoo yow de mën noo ku ci bëgg Serigne Babacar ana Tijaan yi yende jaayu ay Tijaan lañu ay Tijaan lañu taalibe Cheikh di lir dafay mën a maye ay Tijaan lañu ay Tijaan lañu taalibe Cheikh foo ko fekk dafay mën a maye ay Tijaan lañu ay Tijaan lañu taalibe ma di bayee waaw Maria biige Maria Sine yow xam nga mën ñaaw kon baarambay ji neex na kay leen bara baarambay waaw bëkkatu bëkkatu ñu baarambay bëkkatu bëkkatu wa di gëlli ku ku tesa wural xutat baax s'il vous plaît nañ ko may loxo waay tàmbalee ku ñu waaye yaakaar naa ne fi ma toll nii tege tebe ñaari morceau yooyu mu ñu may. nekk na morceau yu am solo moomoo. jege si waaw. fi baax na waaw noonu baax na ci. alors fi nga taxaw noonu fa la ñuy euh, jokkoo rek ngir ñu wax comme ni nga ko waxee. jokkoor maa jor jokkoor leer. ku ma jor leer. daaw da yeewul naaj na. Kumba Joojo Koor leer tay ba wax la li nga juddoo waaye kay ma wax la fa nga cosaanoo Momo xam nga fi ñu taxaw Thiès dafa am lu muy représenté ci histoire Sénégal ba tax na kàddoom dafay jug fii ci manufacture des arts décoratifs de mbaa yëg nga ni fii la Lat tàgg woon ne Kajoor sama réew tey laay dee. mbaa yëg nga ni fii la Lat Joor départ jëm fële nga xamante ne moom mooy ca xeex ba. dama ne xeex boobu keroog ci lañ ko bóob boppam ba des foofee moom Lat Joor Ngoone Latir Jóob bés boobee tey moo waral tey ma daal di yëkkati kàddu ngir dalal waa ji. ki woote lii ci manufacture des arts décoratifs de Thiès. kooku moom mooy Alhaji Dia borom Dia création s'il vous plaît su dee baax na damay ñaan ngeen tàccu ma El mu ñëw daal di def ay mots de bienvenue ginnaaw loolu nag est-ce que xam nga ni traiteur yaa ngi fii. béti borom traiteur bu mag bi waaw waaw le bés de béti bu leen jaaxle xoola bu kenn yàqamti dañuy lekk dañuy naan dañuy kontaan dañuy fecc ndax papa Mbaye boo ko amee am les les délices de béti donc tey da ngeen di kontaan bu ko defee El Hadj si c'est bon jege si ma ñëwal El Hadj ñëwal il a beaucoup dépensé mais aussi mënoon na la ci bañ a fekk ndax ci maa ngi jógee. wallaay mënoon na la ci bañ a fekk jaar boo tuuree ay ay ay xéwal am na lu tax waaye contentement rek moo tax ndax sa digganteeg sa client yi sa digganteeg sa nawle yi sa digganteeg say soppe sa digganteeg say xarit histoire bu yàgg la El Hadj borom Jafé sur création fii ñu taxaw miin nga ko ndax yàgg nga fi woote ba su mel nii ren di sixième édition kon yàgg nga miin fii xam nga ko et c'est tellement important ma bàyyi la nga joxe sa mot de bienvenue te mënut a ñàkk El Hadj Dia. jënd Dieng le phénomène El Hadj Dieng l'incontournable taalibe Serigne Saliou Mbacké bi El Hadj Dieng laa waxoon ci réew mi doo xool lii fa xool catalogue loo ñëw ci yaa ko créé nga day loo bàyyi boo jooyee wàcc ndax la jur fi fii ci manufacture décorative de Thiès fii la tàggoo woon ak Thiès kay kon boo ñëwee ba fii sañ ci fi lu mel nii woo Papa Mbaye woo Pakito woo Modou Banane woo les bêtises de euh, les traiteurs de bêtises wàcc nga eh wàcc ma daan la wóoru ku daan dëggee fii te kaw jiitu nga leen sànni nga leen karawaas taalibu sëriñ Saliou Mbacké bi borom ko teg jur borom jàpp ndal xabaan borom nakan borom dookaa borom amul xuraa yaakaaru sëriñ Béthio maa dem ba Moussa Ngoré ku leb sa njaay bay daal baabu Moussa sa njaay doxalal sa njaay seexul xadim baayam bànnay sa buri sëriñ Mbacké maaram ak imaam Mor Daara sëriñ Demba Baye du ko demoon dabam jaari baa yombe du mel wili bàyyi ba sa baara bàyyi na ne Cheikh Mbacké pour que sa mor fuuta kakkanti gànnaar bàyyi sëriñ Saliou Mbacké laaj doo juddi jiw doo alal futti doo maral taag ndax teewul ak gëm waaw teewul ak gëm da lay neex ngay jaay ngay jubóor bàggee ji ko waaye gën na seen maas ba noppi. mbokk mi maanaam si bu baax mi. Umande wamsikia Mbagu Nama, Umande bu Malick, Jinaani bu Malick, Makka bu Malick, Sidi Fage demal mi ci dawar nga yaakaar, Ada Misel Sambay Naar, Diwala Sambay Naar, Fara Misel Sambay Naar, Sidi Abubakar Si, Sidi Mbagu Nama, Umande bu Malick, Jinaani bu Malick, Makka bu Malick, Bakar ak Borom Maañ, am nga maas ku ma jaay, bay Penda, Fati nga ñëw. Salaamaaleykum. Ah, ñu doon jàkk dina ngeen def. Maa ngi leen di nuyu di leen siyaar te di leen baalu ak ci déplacement bi. te leen wax ne bëgg naa daal maa ngi leen di nuyuwaat bu baax daal mënumaa wax nag ci numéro ci micro mais nag dëgg yàlla damaa bëgg damaa bëgg ci ñëpp di leen nuyu yéen fi nekk ñëpp nag ak Serigne Bamba waaw bàyyi ma yemale ko foofu rek ndax kon daal mooy loolu. <laughs> ndeysaan ñu tàcc ko baax a baax a a xam nga El Hadj il comme sa nii la mel ndeysaan nii la mel keroog bi mu ñëwee sama ngénte la ngénte seex yi noonu la fa def. ndeysaan nii la mel day gaaw daa gaaw a jooy nag day jooy rek. rakete man dama ragal bis bu muy takk sax kii jooy rek waaw. rakete am na am nga gan. rakete. ban gan la. xoolal ma xale bi ñëw. kii ñëw kan la. rakete. ah. kii ñëw mooy borom les délices Soxna Diarra. waaye tàccu leen ma les délices Soxna Diarra waaye tàccu leen ko baax a baax. waaw moomoo. kii ñëw. mooy kan. mooy femme de valeur waaw waaw ndeysaan. kii ñëw. ah. mooy am jom gi. ndeysaan. kii ñëw. ah moo takk ni faale wu ma góor. déedéet. kii ñëw. bokkul ci ñu naan góor projet bi karim bi borom nit makaani malax laa. ah kii ñëw. ah mooy mbokku ndaw El Hadj Pakito ko Mame mu ngi noonu moom itam bienvenue tàcc nañ ko baax a baax merci beaucoup Mame Diarra ah bienvenue moom itamit les délices Soxna Diarra sànq maa ngi koy wax rek. et c'est tellement important léegi nag bu ñu paree damay daal di dugal nag Momo dafa am benn collection boo xamante ne El Hadj damaa bëgg nga préparer ma collection boobu nga xamante ni Dia Fashion euh, création moom moo ñu ko yi proposé tey alors s'il vous plaît si c'est bon collection Dia Fashion création DJ Adja Sow alors s'il vous plaît ñu tàcc ko baax a baax Mannequin de Dali, voilà, collection El Hadj Dia. Voilà la collection de Dia Fashion Création. Alors les tenues sont disponibles à Diakhao, chez Dia Fashion Création. dama ne ana ñu yor ana ana borom jëkkëru kii dama ne yére bi baax na ci seen jëkkër yi vente aux dama koy jaay. voilà la collection de Jap Fashion création waaye lii lan waaye tàccu lan loolu ete baa waaye ete baa dama ne Griff Esteban la yow Esteban Ngok laa ilaaha illallaah Griff Griff lii mooy crop top xanaa lii mooy top oh là là Jefferson Création qui nous propose ces modèles avec Chess euh, Model Agency, les mannequins de Dany. j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, mi voilà aussi. Voilà. beneen a ngi noonu ah dama ne Dia Fashion création ko def et eh, cum waaye ñu ne la verte Casamance wala verte lan la ma ne ko verte Casamance la wala verte lan la vert di tax waaye eh, ana ana ana ana ana Baye Fall yi ana dama ne Baye Fall ci màgg tàcc na loolu waay tàcc na loolu waay El Hadj Dia Dia Fashion Création moo leen ko ne màggal gi eh Momo suñu demul Touba gi bii baax na ci man xam naa ne lay ëpp wala day xat mais baax na ci man. dama ne laa ilaaha illallah waaye tàngoor bi baax na ci tailleur yi dee leen ñëw li ci tàngoor bi. yi ci tàngoor bi. xale yi dee leen ñëw li ci tàngoor bi. ñëw bi rafet na waaye xale bi ko sol. kooku moom mooy ngay bokk ci agenc yi team waa team modèle yi. laa ilaaha illallaah waaye et tàccu leen xale bi yow. laa ilaaha illallaah waaye yow la bokk ak Adja maa kii soxna ay dara. xale bi xale bi nu mu bokk soxna dara. man ne sama jabar ji bu doon jox ci capp yi day capp yi day daanu loolu moom mënu ko bu doxoon ci capp yi dina daanu de ñu tàcc leen xale yi waay na kenn jël risque rek ñëw ci capp yi xool di gis ku dem bërëng rëng ci suuf aja aja aja waaye lii lan bu la neexee de waaye ropp fulaale lii mooy fulaale li mooy Feeling Patch robu Feeling Patch laa ilaaha illallah ciw eh. Momo yaa ngi jot ci fixé yi fixé yi yaa ngi ci jot ci fixé yi fixé yi xale yi buñ la fixé rek sa at ba tukki barki Serigne Bamba voilà connexion Dia Fashion création jàpp seen création El Hadj Dia moo ñu proposé connexion boobee waaye xoolal ma lii waay waaye xoolal ma lii waay loxo yi ci lii waay waaye loxo yi ci lii waay oh là là moom bi baax na ci yow bi baax na ci yow mbubu daa war a jot. xam naa dina ko waxaale balaa muy dem. bàyyil xale bi moo bëri yow. xale bi moo bëri yow. xale bi moo bëri yow. waaye tàcc xale bi waay. et eh, team model agence yi waay ah dama ne dañu yaa ngi liggéey dama ne dañu liggéey ana mbayeen bi mbayeen bi dana ngi liggéey eh, dama ne lo mën na dem mariage mën na dem baptême mën na dem cérémonie bu nekk waaw waaw waaw waaw ah laa ilaaha illallaah mën a ñëw xoolal ma biir rob yow rob bi waaye rob bi tàccu na lii waaye rob bi waaye rob bi solee dem ci xew yi waaye laa ilaaha illallaah xoolal ma xale bi. tim modèle xale bi garde na liggam xale bee garde taaya garde xale bi garde nga si ligne dama ne garde nga si ligne ah. ne xale bi garde na liggam ah ne momo Oh, eh, eh, eh, l'oreille, s'il vous plaît, les mains. Jam Fashion Création. Demandez cette création de la Giga. Oh là là. Ouais, robe bi rafet na waay. Eh, l'oreille ci kaw, l'oreille ma xool, l'oreille. Eh, eh. Oh là là. Dama laa koy jox. dama la koy jox eh dafa rafet li dafa rafet dafa xeere Pape Mbaye daal di xale bi moomoo ah mais lii lan la ah Pape Mbaye sama sañse ñëw na suba lii laay sol ci ci Pape Mbaye bi dama ne suba lii laay sol ci Pape Mbaye bi tegal seen ba eh monsieur et madame Mabo waay waay waay waay monsieur Mabo eh demal jëli sa jabar si monsieur et Mabo Monsieur Madame Mabo. Monsieur Madame Je sais pas si elle est la plus belle, mais je sais bien qu'elle fait partie des plus belles de Thiès. waaw tax ci na may aussi jawaay laa ilaaha illallaah loo bokk ak El Hadj Dia loo bokk Oumy Kébé seede ma nu mu bokk ak moom. waaye tàcc nañ couple bi waaye tàcc nañ couple bi. su ma ni laa yóbbu ci Pam Mbaye bi. moom daal xale bi rob yi rek lay sol moom xale bi rob yi jàpp na ko de xale bi rob yi jàpp na ko de ma jaw xale bi rob bi jàpp na ko de ma jaw la dernière avant la sortie finale eh dama ne momo xale bi rob bi jàpp na ko de eh. yow naka de lii moo la jàpp yow naka de lii mooy sasam waaye tàcc leen xale bi waay Laf Bouche tàcc leen création oh là là lii mooy sa sol yow yes alors la sortie finale La sortie finale avec Tim Chess Model Agency de Dali waaye tàccu na leen leen leen waay dama ne réew mi daal réew mi daal El Hadj Dia Fashion Création yaa ngi def ay yëf Anna Dia Fashion Création El Hadj Dia s'il vous plaît Dia Fashion Création moom moo ñëw lii waaye leen ma El Hadj El Hadj Dia El Hadj Dia waaye loxo yi pour El Hadj Dieng fay seen na eh dama ne El Hadj sa caaya ji El Hadj sa caaya ji waaye xale bi da ngay ñëw sa caaya ji El Hadj kaay ñëwal El Hadj sa caaya ji ak say calax El Hadj def nga lu la neex waaye tàcc leen ma xale bi waaye la ilaha illallah ah, waaw waaw. def yëfi xale bi yàlla sagal. Ah, waaw waaw nii rek la demee du la ah. waaw waaw. nga de jàllale nañu passage bi. def ci ay xeet yi. yëfi été daal xam nga dañoo ne ci bi. waaw moo tax ñu def suñu xeeti robe nii rafetal xam nga bégloo suñu clientèle yi ñi nga xam ne maa ngi fi tax a yëkkati ñu samay ma loolu bëgg ma safoo ma. mais El Hadj ma ah. yëpp wuyu si la. am na loo xamante ne am na commencement mais xaw ma fu mu yem. Uh-huh. wallaahi al azim ma uh-huh. xewle samay nit ñi nga xam ne dañoo maa woote bëgg. démb ak bërki démb tey dañu koo firndeel wan ma fi toll ci man mais pourquoi El Hadj bu osé xam nga lu mel ni mosu fee am manufacture des arts nga woote fi andi orchestre daal di teg mais mais El Hadj kii waaw man la El ñu gën maa xam ci ja création dindiwaat ja création bi def ko jàpp fashion création waaw xanaa fashion nag fa la lépp yam ñun lépp luy fësal lépp luy osé te yàlla may ñu kàttan ak mën-mën def ko dañ koy def. alaaji te lépp lépp li ko waral mooy. gën a mën a bégal. egg si na ci détail may ma ba ma àggale waale. El Hadj Dieng je suis Dia Création. Eh xale bi xale yu bëgg te triché wuñ ci benn yoon mbëggeel gi ñuy woote ci man daanu ci ñoom te moo waral li wallaay ndeysaan xale yi jugee ba fu ne Ndakaaru Njaay jëjoob ak fépp ñëpp a fi waaw kon xanaa xale yi man lañ bëgg nag ah, eh? waaw mi ngi noonu ma wóoru yàlla teg ko lépp yàlla di ma jàppale nag ma leen di gën a mën a bégloo saa su ne te kanam la jëm insha allahu rabbi ak sama ñaanu yaay nag du ma ko fàtte waaw sama yaay mooy sama laaj wax dëgg yàlla saa bu ma ko saa bu ma ko tàllalee sama loxo mu ñaanal ma ma gën a am fit ma gën a gëm ne àdduna yàlla ko moom wallaay ndeysaan léegi dernière question bi mooy lan ngay wax sa client yi nga xam ni yow lañ taaw sa client nga xamante ne nii yow lañ préféré ndax bi ma laajtee dañ ma ni Elhadj du sàcc modèle du xool liifa du xool catalogue lu mu ñëw ci réew moo ko créé xale yi ni yaay doo daal ci kaw tali oto bu la jënd dana wàññi Elhadj Dia lan ngay wax say clients yi nga xam ne ñoo la taam. waaw loolu du bari ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi euh, di sant sama patron bi nga xam ne mooy Mamadou Seck. du président de tous les tailleurs de la région de Thiès. bu ma jugee ci loolu di sant Moutala Touré. mu. kooku kooku moom it dafa joué lu ne sama carrière te bu ko neexoon mu di ko def moo di ko tere mais bàyyiwu ci dara samay client nag ah osé bee leen bëgg bëgg lu baax ñu gis ne xale bi bëgg na lu baax te ñeme na ko te mën na ko kat. Oh. ah lu ñuy def lu dul wër si nag. noonu la demee. ay te bu baax a baax def seen création ay te sa dernière dernier kàddu bi moom damay sant ñëpp mënumaa lim ndax man awma noonu ñëpp ma bëgg wallaay day sant waaw kon nag ñëpp laay sant ñëpp bàyyiwuma kenn samay xarit samay àndandoo sama ñëpp ay te ku bëgg El naa benn noonu moom ko <laughs> ay waaw waaw te sa taagu leen bilam leen ci sa maam leen ci tukku li tukku laan ndigilaan si nii si la njaay njaay njaay bàyyi Seydina Mouhamed bu ndaw. sallallahu alayhi wa sallam. kii bëgg bàyyi Fatima ak Rokhaya ak maam Umu Kalsum ba tuddee ko doom. Momo. waaw dañoo am suñu groupe boo xamante ni. mu ngi tudd soppee Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. chaque guddi ajuma dañuy daje. ñun animateurs yi moo tax ma ne parfois dama ne parfois ñu ne animateurs yi parfois ñu sas ñu ñu yàq ñu lu ne waaye xamuñu ne su suñu toogee suñu groupe. suñu ay salaatu lañ yor di ko partagé taala mii day ñëw ne ma Pakito defal sans salaatu. julli ci yonent bi ci loolu. ma yónnee ko ne ko bii baax na julli ci yonent bi ci loolu. bu ñu jullee ndoo fajar waxtaan ci appel vidéo di bàq yonent bi. barki Seydina moom balaa ñu déplacé wu dem rajo di bëggal nit ñi ñu ngi ci yonent ba ko waral moomoo jeudi bii di maa aay guddi ajuma daayira som ansar daayira tijaan yi dégg maa la invité maa aay daayira incha allah euh, Talla lay wax ci bés bi jërëjëf Paquito mon ami mon frère l'homme de la nouvelle génération l'homme du Best FM may ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax a baax je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements très fort dégguma leen de alors da ngeen bëgg maa yemale ko jërëjëf merci mon frère hmm. Paquito jërëjëf jërëjëf di bu baax Eh, déjà des coxaatives de Thiès nee naa la Thiané Dia mbaaxeen la ana El Hadj. mu baax El Hadj yaa mbaaxeeneel Thiané Dia mu baax mi. Jakunta Aleeg Ndiouga mu baax mi hmm. mbokk Ndeye ma Adja Marème Gueye mu baax mi. Ah. Yacine Gueye Massar ak Ndaxte Gueye ak Tade Gueye Massar ak Saneba grand léegi maa ngi lay kontaane bu baax tubaarkalla. dooy maali maram dooy yëpp borom Dakar borom fukki benn ci yéen ñaar jiro bay dem ba koy bay dem ba ak lakki bay dem ba ba ku seen bu baax mi seen caali dem ba seen ma seen waale ma seen sa jol la jógee bay dee nga sasaar nga raa nga caa jaay maam sakura nga dënd uuf ma fan ko doo nga jaayaan mbay bu baax tubaarkalla suma xol faj sedd mbay wuyul waaye de l'autre côté ma gëstu gis itam ki nga xamante ni bii mooy Sadio bu Serigne Babacar si sa xarit nga ni Sidi Fag yi jëmbamit si jawaar la gëm bokk ndeyam Ibou Bakar ak dara maan ak aram loo maam Kumba Caam bañ Penda ak Paate Penda ak ah. bu di bakki Sidi Fag yi jëmbamit si bu weex bi tiri baay ku ma woo ci photo ali boy mi seen sàmbay naar ak toppati sàmbay naar ak baax sàmbay naar fara bi sàmbay naar alaaji bu ma ko toppee nii ah. mais di taala waaw mais di jël sa xarit maam Jaara fii pare nañu dañuy daal di dalal Papa Mbaye xale bi bégal ñu. tey ma bakk gar mi man tey ma bakk gar mi man tey way jigéen ju man góor

kala may rakki bàjjen kala may bokke al elas gelay way caane caane jigéen ju man góor caane caane jigéen ju man jom jay dana jàbbaay jikko ci kan ngir ba ko dingalee mari njaay jaata njaayi alburi mooy sa maam ma nga dooso alburi biram bu kari bi ke sangu bu na jigéen baasin bu nu ma bu nu teen waa Jolof di canaan ba mi naan bu na Mari Njaay Mari Njaay Fadimba dunu ba dégg ajaara ki bàjjan kala mbay leen ko yaa kala mbay yaa kala rakki bàjjan kala mari jaay yo ki nga bëgg ko noonu daa leer mu bëgg la bëgg la bëgg yow sonkoy xol di jooy loolu daale wu yoo mari njaay mari njaay ki bëgg nga bëgg ko loolu daale mu bëgg la bëgg la bëgg la bëgg mari njaay soo koy xol di jooy wu yoo mari njaay la ndeke mbëggeel di lay def ci jaam dalay miseer loo lu demal sa xel yokku say xalaate yow waate hélas ki la bëgg nga bëgg kooro hélas ya mu bëgg la bëgg la bëgg la bëgg la jatukuloo soo koy di jooy góoru mari njaay te ma dina jiin dëkk mbëggeel ni lay def ci jaam dalay miseer loo la demal sa xel yokku say xalaate yokku waate jigéenu mari njaay bu ni xëcce wurus xam naa ko jël ngalam doo perte yow Elhadj Dia xam naa sa yaay jur baa doole ii ndey faatu ku ko tàccu doo amelo aku ci sar xol ne doo dee ay say ay bu ni xëcc wurus xam naa ku jël galam doon Mari Njaay ci sar xol man dama la yaay faatu na la bëgg ndeysaan ñu dañu la dañu la dañu la ñu dañu la dañu la dañu la Marie Ndiaye yaayu Ndeye Fatou la kon Marie Ndiaye Marie Ndiaye Fademba eh yaayu Ndeye Fatou dal ñëw na yaayu Ndeye Fatou Marie Ndiaye Fademba kon Marie Ndiaye Marie Ndiaye Fademba yaayu day faatu aja mari day duud mari njaay mari njaay yaayu day faatu aja mari day duud kon mari njaay mari njaay fa dem ba ay faatu sama day faatu duud kon mari njaay mari njaay fa dem ba faatu mari njaay duud ay waay bëkkër yu ma waaw anta jeebe waaw kulo ba kër yi woo ma jaan mi ñëw na jaarakaay ganjool sa kër maam futa tooro sa kër maam bii sa gay sa kër maam woo naa la yi soxna gay soxna gay mbokk yaayu hélas jëtu kuloon bi mi na joobe mbokk yaay soxna gay tey ma dina joobe ee wuy wuy wuy mari tey da fay na couleur bi tey ma dina joobe gay wuy wuy wuy mari tey da fay na mbokk yaay soxna gay tey ma dina joobe gay wuy wuy wuy wuy mari da fay na couleur bi tey ma dina joobe wuy wuy wuy wuy mbokk yaay soxna gay tey ma dina joobe gay wuy wuy wuy wuy da fay na yow Elaj ja waaw te tukulóor bi woo naa la waaw waaw waaw te tukulóor lay wayal ma di la ji di la jombe waaw waaw Elaj tey ma di la jombe wuy wuy wuy wuy wuy te tukulóor bi tey ma di la jombe koy daan waaye maam jaara jigéen ju mën ko kulóor toj na réew mi waaw yow yaay sama doomu yaay yow elas ja toj nga réew mi waaw yow yaay sama doomu yaay yaay sama doomu yaay jant kuloo toj mi waaw yow yaay sama doomu yaay Fama yaay mi waaw madam sekk wonaa la man soxna gay yow yaay sunu doomu yaay yow soxna gay réew mi waaw waaw yow yaay sama doomu yaay yow soxna gay toj na réew mingu boora Shiri Bafu collection wax leen Bafu collection Bafu collection nee na yow la Bafu Bafu collection collection Bafu nee na yaayu faama mbokk yaayu maam xale be ka wari mareem jaayo mbokk yaayu faama Maam Jaara wuy Maam Jaara meta yow caara caara naane jattu kulóor bi doomu baayu Elans caane ja tënge réew mi waaw yow ja tënge réew mi waaw waaw sunu doomu baay candi ga tëngër mi waawaaw yow yaay sunu doomu baay jatu kulóor yow maa kontaan nga yow yow maa kontaan nga nee na de kontaan dire hélas ya maa kontaan nga si tukulóor ba kontaan na. hey El Hadj Sisi kontaan na. El Hadj ba kontaan na. El Hadj nee na Sisi kontaan na. ja tukulóor ba kontaan na. hey El Hadj Sisi kontaan na. El Hadj mbokk yaayu caane ja. hey Sisi kontaan na. caane ja tëj nga réew mi waaw. yow yaay sunu doomu baay. ay ciri jatu bi li ni ci doomi gar bi yaa ngi ci yow jom jay dara jabaay ji ko ci kaleer ngir bokk déggalee mooy caane caane caane jigéen ñu man góor hii doomu baay ma bëgg doomi baay ku ni baay ni xul da nga ngi sukki nga wax ka caane caane caane jigéen ñu man góor hii ni li doomi baay hii doomi baay ku ni baay ni xul da nga ngi sukki nga wax ka caane sunu doomu baay moo bëgg doomi baay ku ni baay nii xul na nekk sukki ko ba kaldeere yi ma moo baaba moo bingal bonon taama bu sa yaay baaxee sa baay caane doogu mën a bon sa yaay jëri bi ci mbey saxa yaa nga lambaay kon ki jëre jëre jëre jëre jëre jëre jëre jëre bi ci mbey leen kon jërë jërë sanku jërë jërë jërë jërë jërë bu ci béy ak a jóge ak a rafet ak a siluise wax leen ko sanku jërë sanku jërë yaayu caane jërë bu ci béy way caane ak a jóge ak a siluise ak a rafet ak a mën a sañse sanku jërë jërë jërë sanku jërë jërë bu ci béy way caane ak a jóge mën a sañse tey ma di la jombe eh wuy wuy wuy wuy ay da fay da caane tey ma di la jombe ay wuy wuy wuy caane da fay da jigéenu hélas tey ma di la jombe eh wuy wuy wuy caane da fay da sunu doomu baay tey ñu di la jombe wuy wuy wuy caane da fay da jigéen ju man góor sokku mooy sa yaay eh wuy wuy wuy caane da fay da jërëjëf baa ngi tey ma di la jombe wuy wuy caate dafay daal. a jëri jëri baagi. jëri jëri baagi. dikkal jëri jëri baagi. jëri jëri baagi. jëri jëri baagi. jëri ma jëbi. jëri jëri baagi. dafa yàgg la bàyyi. kon jëri jëri baagi. jëri ma jëbi. dikkal jëri jëri baagi. dafa yàgg la bàyyi. kon jëri jëri baagi. jëri ma jëbi. dikkal jëri jëri baagi. dafa yàgg la bàyyi. tey ma dina jàmbe. caane wuy wuy wuy wuy ay dafay daal. caane tey ma dina jàmbe. eh wuy wuy. ay waay samba wuy ay samba eh wuy wuy wuy caane da fay da caane tey ma dina jombe eh wuy ne caane bari fili jere tey ma dina jombe eh wuy wuy wuy caane bari fili tey ma dina jombe bi moo ngi nii avancé avancé leen avancé hey Jaara Maam Jaara bu Sambali Maam Jaara Sareen bi maam jaara saareen bi waaye mu naas ñëw na mu naas ñëw na mu naas ñëw na daara bi dafa yàgg ak ñun. lu yàgg dëgg la. loolu du tey démb la. maa ngi ñëw ci moom. maam jaara bu sobaali. maam jaara bu sobaali. góor la dina jombe kay wuy wuy wuy wuy mu nas dafay dal mu nas tey ma dina jombe wuy wuy wuy wuy yow dafay dal suma jigéen tey ma dina jombe wuy wuy wuy wuy yow dafay dal jigéen ju man góor tey ma dina jombe wuy wuy wuy wuy yow dafay dal yow mu nas tey ma dina jombe wuy wuy wuy wuy yow dafay dal li ak dëgg la tey ma dina jombe Munaas ba kontaan nga ba kontaan nga ba kontaan nga jigéenu Elas yow ba kontaan nga ba kontaan nga Munaas ba kontaan nga ba kontaan bay de mbokk yaay jàkkuti Jakaréation fashion wax leen Jakaréation fashion wax leen Jakaréation fashion lu bees a bees ja création fashion lu bees a bees ja création fashion ay waay samba wuy ay samba wuy wuy wuy wuy lu bees a bees ja Papa Mbaye de création fashion wax leen ko lu mu ñaawul baaxul ay waay de création fashion elata lu mu ñaawul baaxul wax leen ko de création fashion elata lu fi ñaawul daal baaxul Paquito de création fashion waaye jaara xale bu teral dayam dawul Papa Mbaye jërëjëf moom itam acca bu ko defee rek ne damay daal di woo keneen Sarr sama xarit bi xam naa ne tey moom liggéey bi tey heure bi waroon na fekk Sarr tëdd bu yàgg yàgg mais garaawul ndaxte vacances yi incha allahu rabi Sarr vacances yi liggéey bi lay xaar dina yàgg lool ndaxte dañu bëgg Thiès holidays bi ñu def ñu toxal ko fii incha allahu rabi ci vacances yi tous les samedi dimanche fii ci manufacture ak Pakito Paki Evans Dani dama bëgg ngeen waajal ko. léegi nag damay daal di woo keneen koo xamante ne dañuy proposé modèle am laata Pape Mbaye di tëj li nga xamante ne moom mooy guddi gi muy gaw Gawsu borom la différence gaw Gawsu moom itam bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen di bàyyi xel toujours avec team bi nga xamante ne moom mooy ñoom waa TMA Mayo gis naa sa sa avancé Mayo bàyyil feccu tubaab bi nga nekkee ci réew mi feccal feccu sénégalais Alors, si c'est bon, on enchaîne avec Gaussou et la différence. Gaussou et la différence, s'il vous plaît. Nous proposons nous ces modèles. Nous avons avec Watema, Boudani, les mannequins de Dani qui vont nous présenter ces collections de Gaussou. La différence, DJ, si c'est bon, on y va. Wow.

Gawsu la différence déggal foofu rek déggal mais lii caay la wala tubay la wala lan la dama ne lii la wala tubay la wala lan la waaye soxna jaara gis naa fii de les délices la jaara wuy maye jaara lii gis naa la ci de waaye tàccu leen loolu waay laa ilaaha illallaah ah eh. Gawsu est la différence Sadio Diaw mon ami ndeysaan dama ne xoolama xale bi xoolama xale bi na mu téye robe bi waaw mais robe bi rafet na quand même waaye su ñu ay tàccu leen loolu c'est très joli très joli vraiment Gaoussou avec cette collection surnommée la différence de Gaoussou et eh, et eh. dama ne lii de boo may seet si sol ko ndax dinaa la ci miin man de dinaa la miin ci moo dinaa eh, eh, eh. ilaaha illallah lii ay kawas wala lan la waaye xoolal xale bi ni mu taxawee waaye dañuy defati nga yëf waay ay dañuy essayé man kay waaye laay dama ne tàcc leen loolu waay yow nag yaa ngi door sol yow yaa sol lu baax bi ñu dalee sol ba tey yow li a sol daal dama ne yaa door a sol lu baax li yow la ilaha illallah wil tourné bi waaye dañuy essayé man kay ay dañuy ay tamit seen man joxe waaye tàccu leen xale bi waay ah mais gis la ci de Thiané lii gis naa la ci gis la ci Voilà la collection de Gaussou, la différence. La collection de Gaussou. Mais papy, mon ami, de 2014. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mon ami, ndeysaan. xoolal ma robe bi mais c'est la classe. c'est la classe l'élégance la classe waaye tàccu leen lii waay mais c'est la classe et l'élégance waaye xale baa xale bi daagul daagu daagu déggeen mbaay eh. waaw waaw ça c'est la classe li ma gën a neex ci rob bi sec mooy daal daa mel ni daa am veste ci kanam veste veste dañoo génne veste bi veste bi ay góor c'est la différence Oumy Kébé gis naa la fii Maman gis naa la ana Baye Fall ana Baye Fall voilà Dany voilà Dany voilà Dany e eh, tàcc leen ma kii moo yor man kay tàcc leen ko bu baax a baax a baax waaye dama ne le voilà Baye Fall bu mag Baye eh, Ngok voilà Dany avec cette collection Ibra Fall jaajëf Fall barki Chebre ana Baye Fall yi màggal gi neex na ba noppi waaye tàccu leen leen gaw s'il vous plaît avec cette marque la différence macha allah dama ne lii daal Baay Faal lool yaay Faal yi ko sol itam lii day na waar de moomu. alors ana Gawsu s'il vous plaît. eh loxoy loxoy loxoy eh, eh waay loxoy ci nga Ekeusu la bari ci kaw la bari ci kaw la bari ci kaw la bari ci kaw eh Geusu Geusu ay Geusu daan waaw waay loxoy waay su ñëwal doxantu waay tàccu leen ma Baye Fall bi waay tàccu leen ma Baye Fall bi la ilaha illallah momo 2019 ba léegi suñu door national gars yi jëlaguñ ko de waay tàccu leen loolu waay da nga doon reer na loo xam kenn du ko def ma dégg lu ma 2019 ba tey ciseaux d'or régional kenn jëlaatu ko ba tey te moo ko téye tàccu leen loolu bu baax a baax a baax waaw bu la neexee jaayul ak lan. représenté Thiès au niveau national. représenté Thiès au niveau national ma ne tàccu leen loolu jar na ko. daal di koy dëbb bu mu mokk rumba. daal di dem nag yóbbaale kuur gi dëbbaale ko nag ba dëbbaale ñu nekk foofee tàccu leen loolu baax a baax. waa Dakar ba léegi ñoom may laajte. waa Dakar dañ koy wër. 25 novembre. 2023. Kolde Ardo Sow. gis sama collection. mu boole ma journée ñaar journée yoo xam ne yëpp damaa woo pour mu ñëw wane sama collection te foofu ku dul ndaanaan ku xamul lan may collection munoo bokk sax ci ci ci qualification yi bay bokk ci mag bi te loolu lépp lu ko waral yàgg a nekk ci tarbiyu yàgg a nekk ci défilé yi ba dem yàlla defal ma ci loo xam ne mun naa wax sama morom yu bëri amuñu ko loolu rek ma koy sante sama patron ko sante samay waajur rawatina sama waajur bu jigéen wax dëgg yàlla moom sonn nañ ci ñun lool wax dëgg yàlla bu ñu sañoon nag ñoo ngi ci métier bi dañuy ñaan yàlla suñu borom defal yoo xam ne daal nañ ko mën a teral ba mu yëg na moom doomam teral na ko loolu daal la ñuy ñaan di eh, nuyu suñu. waaye tàcc leen ko bu baax a baax waaye tàcc leen ko baax a baax a baax xam nga yaay dafa sax ci doom xol la nekk moo tax bu ko tuddee rek xol bi tooy moo tax nag nga sant ak gërëm kan. Euh, sunu président buñ ko muy président Mor Seck. waaye tàccu dama Seck mi waay Seck mu baax mi. moom buñ ko santee rek dañuy sant képp koo xam ne téyër nga sant képp koo xam ne dëkkandoo la man ak Seck mi yàlla dañoo boole lu yàgg man ak moom ñoo bokk ñoo duggandoo école primaire école Michel le Grand 91 euh, 6 euh, octobre 91 dañu duggandoo école. <laughs> am may noppi ba tey yàlla boole ñu ñu jaas ay kii yu bëree bëri bëri ba tey mu ngi rafet di ñaan yàlla suñu borom def mu gën a gën a rafet daal loolu daal lay ñaan di wax na daal Gawsu moo ngi nii di borom kees di borom Sénégal di wax ne ngeen ñaanal ma ah di di sant élage Hadj tamit koo gërëm bu baax. jaafër jaafër wax dëgg yàlla damaa waxoon dans trois mois la quatre mois moom mbiru défi la la mu siy xaw a tuuti waaye moom yàlla dogal. Euh, patron muy sekk lu bëri ñu sekk ko kon ku mel ni El Hadj moom tamit saa saa su ne yàqu ko kon bu wootee bis bi même su ma dal waxoon damay dalu lu métti métti war naa ñëw wane sama collection jàpp jàpp ci bis bi bis bi dana taaroo di ñaan yàlla at at yi beneen at bi ñëw gën a fooxee at at bi ñu nekk soobee yàlla maa ngi bëggee ñëpp. waaye tàcc nañ ko baax baax. tàccu leen ma gaw su bu baax a baax a baax c'est bon pour les défilés s'il vous plaît collection yi jeex na jeex na tàkk léegi nag dañuy ñëw nag ci daj këpp gi reer gi musiciens yi doo leen reer tant que Pape Mbaye pare ko ñun ñi nag dañoo war a tëj seen soirée te Pape Mbaye mooy tëj soirée bi déjà mu ngi noonu jeex na tàkk saara ngeen taxaw waroon tëddi bu yàgg ma dikkee ma dikkee ma dikkee na amul fayu ma dikkee ma dikkee taalibi sëriñ Babacar Si bi bay mbay defal foofu ma dikkee xaw ma foo nekkee bu dee yaa ngi may gis wala yaa ngi dégg sama kàddu gi El Hadj moom mu yóbbante ci yow El nee na kontaan na ci yow magam bi ma dikkee El nee na sant na la gërëm na Oumy Kébé

elhaja ñëwal nga jox ma turu gaay yépp ñu àndandoo bay mbay papa moo ñu war a culturel bés bi dama bëgg nag ñëpp jug ambiance parce que tey ñu tëj guddi gi ak papa mbay ma dikkee wax naa ko yóbbante bi elhaj nee na kontaan na ci yow waaye staff bi yëpp yëpp yëpp yëpp nag elhaj nee na amul seen fay maman Oumy maman ñoom ñëpp mu ngi àndandoo ak yéen di leen ñaanal Ernest mu neex mi yàlla na yàlla defal ko jàmm Jibi enfance ba tey mu ñëw papi 21 heures la wàcc xam nga papi maag moom 2014 la ba tey waaw 2014 ba tey sama xarit kon nag El Hadj nee na mu ngi leen di bu baax baax waaye dani ak man kay El Hadj na amul seen fay famille wam ngi ñëw toog jàpp ci bés bi bàyyi seen nelaw bàyyi lépp ñëw jàpp ci moom ak yaayam ñoo bokk waaye nee na dëkkandoowam yi waaye patron mi ko yàlla booleel ñu jàpp ci bés bi lool seen 24 RTT ñoom ñëpp amuñu seen fay jëy na ba dem Diouf ñoom itam ñu ñëw mais tailleur yi jàpp ci bés bi nee na ñu ngi kontaan bu baax ci yéen nee na ñu ngi béggee bu baax ci yéen El nee na amul seen fay loolu la woon waaye Pape Mbaye ak groupe am nee na amul seen fay nee na mënul wax mais mu ngi sant ñëpp Seck président xam nga naru moon a wax sax ñu bëggee Pape bu baax ci honneur bi nga defal xale bi DJ Pakito ak euh, les animateurs parce que su ma ci waxul su nit ñi demee sax nañ jàpp ni dara mais bëgguñu woon jël kàddu wax moom xam na suñu diggante mënul woon nas Bousso ñoo ko def ci moom mook jay na ba mii ñoo fa nekk ndowoon mu metti trop xale dafay naqaree wàññi moom lu ne naa ko moom moom lu ne daj naa ko ci moom pour mu am réussite parce loolu laa ko yéene woon tey parce que fierté la fier sama fierté la man parce bu naan ma ki nga jàngal tey moo taxaw di def lii fierté la man kon am naa ci honneur na gën a góorgóorlu parce que métier bi métier bi nit mën na ci am lu ne respecteel ñi nga àndal respecté say kilifa respecté say wayjur respecté say mbokk ak say xarit sa am jàmm xam fi ngay dëgg sa tànk parce que xale buy jóg lu ko sërëxal dafay yomb loolu c'est très important da nga yéeg ba nekk au nga yaakaar ne yaa ngi àgg ñu sërëxal la nga wat loolu nag yàlla bu ko dal xale bu baax la bëgg na li muy def bëgg na li muy def te clientèle bi am na ko loolu rek moo ci am solo day respecté rendez-vous bul xuloo bul xeex parce que kuy ñaw des fois am na yoo xam mënul ñàkk mais toujours tolérance ak waxtaan ba wax ju neex sarax ñu koy encouragé bu baax di leen félicité ci ñi ci jàpp ñëpp kontaan nañ ci moom mu jëlaat honneur boole ci madame Seck moo tax tey bi ma ne équipe bu RTT TV événement bu ñu am dañ koo bàyyi wallahi la si événement la ñu amoon Medina Fall mais dañu koo bàyyi yóbbu ñu caméra ñu jël caméra yëpp indi ko fii pour moom te laaju ñu ko ñaar dërëm un franc kon loolu faaw ñu def ko ci moom parce que moom moo ñu ko jaral kon ay mbokkam aussi ñun suñu xol seet na ci moom mënuñu ko woon ñàkk bañ a wax parce que émotion la merci bi jërëjëf looy sànni kay ñëwal waa gannaaw ba nekk ci turam ak santam ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ah, li tax ma jël kàddu ah, bis ndax dañoo ànd ànd nawle ànd ànd géer ak géwëlam ñu dem ba benn moment nekk ay xarit ndax lii xew nii première édition man maa ko joué en live fii maam Cheikh mais ci la bokk di sama rakk maa ko géloo lii man maa ne ko inauguré defal inauguration sa atelier maa ko conseillé jëlee ko marché ba mu génn ci mbedd kon yàgg na nu maag moom ba pare nag ne ko da ngay jël lii nga feete fa woo woote génne say modèle kon ay at la nu ànd waaye boo gisee ma continuer ànd bi defal na ma loo xamante ne bii ñi ma bokkoon sax defaluñ ma ko ndax day jóge Thiès di ma seet si ba Dakar woon ñu ànd ànd nawle du xaalis maa ngi moom kuy jóge ba Thiès di la ma feebar hélas daf may seet si ma wér hélas daf may seet si aar laa doon dund fii waaye ma fi jógee mel moom moo fi jógee ñëw seet si ma dafa ko benn yoon sama ngénte doom yëpp Dakar day sol dàllam fii ñëw bu may tudd day ñëw bu ma tuddul day ñëw sama yaay bi muy jógee Màkka samedi bi passé ma nga fa woon ñaw ya am yëpp moo ko ñaw du ma laaj dara kon ànd nañu ànd gor ma bëgg ngeen tàccul ma ko ndax ku gore la ndax jàpp tawu bàyyi rek ko xaalis dañoo ànd ànd nawle ma kontaan ci moom ndax daf ma defal lu ma sama askan defalul bu ma neexoon dama fiy taxaw bàkk la kañ la ndax ku koy def maa ko ma barke yonent bi waaye damaa ànd ak yow ànd nawle damay taxaw jàkkaar la yow nga xewle ma yëgal sama dërëm ma sama doole taxaw ci muy ànd xarit ak xarit romb na nu ak géer ma ak yow nekkatuñu niveau boobu xam lu ma bëgg tuddee la doom de man dama ne woon doom bu bu ma am yonent bi laa ko tuddee maa ngi ci ñaata ñett macha allah yaa ko seede te ñëpp Mouhamad la waaye yow amel naa la benn turandoo parce que da nga maa topp jàpp ma àndu ngor ku bëgg Elaj damaa bëgg nga tàccuwaatam na ko jërë ngeen jëf lii laa amoon pour wax maa ngi sant di gërëm boo ko waxul woon gore kon nag tàcc leen ko baax a baax sama xarit bi El Hadj kon jërëjëf gàcce nga laa ma yow yàlla na sa jàmm yàgg léegi nag léegi nag dama bëgg nag ku ci nekk rek fa nga toog rek nga daal di préparé wu ambiance bi sumi say daal rek bu dee dafa xaw a kawe sumi leen ko ndax guddi na ba noppi Pape Mbaye ñëwal woy leen doxalal bégal ñëpp bu ko defee le 13 bu leen fàtte nii ngeen ñëwee jënd leen ci biir yi bu lëndee di ngeen déglu ci rajo bi incha allahu rabi lundi ba jeudi di ngeen déglu Papa Mbaye di ngeen dégg seetaan Papa ndax ndaxte incha allah daañu ànd ak moom waaye samedi à partir de 21h ñu nga fële ci esplanade bu sapeur pompier suba nag ña nga ci kan house waaye samedi daal yitteel nañu de samedi yitteel nañu de le 13 samedi sama samedi la ku ne am na ku yow wax ma ku lay doyloo sa xol bi ku ci nekk yow wax ma ku lay doyloo sa bëggeel woneel sa nobel mam jaara saar dama lay dama lay jombe mam jaara saar tey ma dina jombe jaara ku lay jooyloo mam jaara ku lay jooyloo jaara saar ku lay jooyloo sa xol bi ku ci nekk yow jaara ku lay jooyloo sa xol bi ku ci nekk ku ne am na ku lay jooyloo ku ne ku lay jooyloo ku ne ku lay daaneel kon sa bëggeel waneel sa nobel Sarr dama lay dama lay jombe Mame Diarra Sarr tey man dina jombe Mame Diarra Sarr dafa jongo ma yow Diarra ku lay jooyloo yow wax ku lay jooyloo sa bi ku ci nekk yow wax ku lay jooyloo kuy sa caatu yaay sa loxo ca kawaay. gàttul yéetal dina ubbi ubbi kii kaay bi. ku ci bëgg maam jaara jugal yëngu waay. gàttul yow mooy dina ubbi ubbi kii kaay bi. kuy sa caatu yaay loxo ca kawaay. gàttul yow mooy dina ubbi ubbi kii kaay bi. ku ci bëgg maam jaara jugal yëngu waay. caate gën a neex taaw yee. maam jaara dama lay wey. waaw Madina Joobe wax leen sama jigéen bi saareen bi ñëw na tey Madina Joobe mbokk yaayu métaala maam jaara dama lay way wax leen ko naa ko tey Madina Joobe yo bay bay man dama lay way yow xale bi kay yëngal ah bon day baax jonge ak a rafet wax leen saareen bi ñëw na yëngal ii jaara saar de nu ma yëngal wax leen saareen bi ñëw na ma jaara saar di nu ma yëngal mam jaara dama lay way ey xale rafet dama yëngal mam jaara dama lay jiib jaara ak a rafet ak a jonge mam jaara saar ma dina joobe wax leen ko bëgg naa ko jaara saar ak a joge mbokk yaayu jeena balay way mbokk yaayu jeena balay way jeena ba madina joobe jaara saar ak a joge yo bay bay man balay way yow xale bi kay yëngal jaara saar day baax ak a a waaw saareen bi ñëw na jaara saar ak a maam jaara demalay bañ yi jaara saar ak a jigéen ñu mën góor jaara saar borom la tiris dafa waaw tey ma dina joobe waaw borom la tiris dafa jonge meta doxal loolu dóoram la tërës daf ko joge wax leen tey ma dina jombe jaara saar xamba xaarit ak ka joge yow mam jaara lay way jey na ko yow bay bay ma bëgg ko yow xale bi kaay yëngal papa mbay dafa génn fecc bu bees loolu lu mu man dama génne fecc bu bees loolu lu mu ma ko génne man fecc bu bees loolu lu mu daa budurum daa burum daa budurum daa burum daa budurum kon daa budurum daa burum daa budurum daa burum daa budurum jaara sama mag la jantal baaraam yi ko bokk yaay digital way naa ko jantal baaraam yi ko dégg naa ñu naan leget gi jantal baaraam yi ko sama jaara ani leget gi maa ngi dégg ñu leget gi jantal baaraam sama jaara yi ko man xam naa faw ma yëngul samba nga jox ma ci leget gi samba jantal maara yëngul samba jaaraan feccal ma ko feccal ma ko ma ko waaw délice de parcelle jantal maa raayugul Samba Jaara ami leget gi ii jantal maa raayugul bu soobee yàlla dinaa la seet si ii jantal maa raayugul ndax man faaw nga jox ma ci leget gi Samba Jaara sama mag la mbokk yaayu digital sama mag la lu yàgg dëgg la sama mag la Samba mooy borom léget gi. i jëndal maara Samba Diarra yëgul. wax leen indi léget gi ñu seeti Samba moom am na léget gi mu def ci tuuti ñu ci dex gi. ndox mi neex mi ñëw na tali bi sëñ Matar si la Samba ñëw na sa bëggeel waneen sa nobel yo dëkkal dëkkal gaay dëkkal gaay ku ne am na ku lay jooy Samba Jaara jattal maara idil leget gi jattal maara mooy borom leget gi Samba Jaara jattal maara Samba ngi noonu Samba Jaara jattal maara borom leget gi jattal Mara la. borom leget gi borom leget gi borom leget gi. jantal Mara la. Samba jaara may. yoxtaan Samba yow da ngay sama mag bu waaye nag wuy ma sama anniversaire dama koy def le treize te sama parrain officiel yi ma waaj ko dama koy yóbbu esplanade Kassapour ci esplanade bi. Mame jaara mooy sama marraine dinañ ci waxtaan demee waaw dëgg neexul Samba Diarra di yetaala baayu Mohamed sama waa ji noonu soxla wee ci ngoon ba léegi maa ngi lay xalaat ndax xam naa ni jaaga ndaw si rekk lay xaar pour décanter yaa gaaw ci gaañi DJ Talla yaa gaaw ci gaañi mbokk yaay soxna Jaara Juuf bu maam Seex Yirim mbokk yaay soxna Jaara Juuf moom Jaara fa with somebody jigéen ju mën góor mbokk yaayu ñaabu waali doomu yaayu mu moobu waali balaago mam jaara le treize sa bis la xamal loo Xalass Couture le saareen bi saareen bi ñëw na waaw ma moo bu waaw tey ma dina jombe eh. wax leen ma moomu waali wax leen ma moomu waali ku sa caatu yaay loxo ca kawaay ku ci bëgg ngoone dama lay way ne pen la dama lay way borom la nara coiffure la pen pen bi ñëw na waaw pen pen bi ñëw na borom la nara gi pen pen bi ñëw na yaayu elas ja pen pen bi ñëw na mooy borom la nara ngoone tey ma dina joobe ngoone borom laa naara ko naara naara ngoone fen la fen fen bi ñëw na tey ma dina joobe sa bëggeel waneel sa nobel yow Ngoné Pène dama lay dama lay joobe mooy borom la nara coiffure ñëw na mooy borom la nara coiffure ñëw na mooy borom la nara borom la naara coiffure ñëw na. Talla Ndiaye. borom renaissance ñëw na yëg ne dama lay way. wax leen ko dama lay ji. pen pen bi ñëw na. pen pen bi ñëw na. Moodu sa doomu ndey. pen pen bi ñëw na. Talla Ndiaye ngi. pen pen bi ñëw na. Talla Ndiaye ngi. pen pen bi ñëw na. Talla Ndiaye ngi. pen pen bi ñëw na. Talla Ndiaye ngi. tey ma di la jëm. Gayu Elas Dia Dala Gayi Jakaria Show Fashion wax leen Jakaria Show Fashion Jakaria Show Fashion wax leen Jakaria Show création fashion sa bëggeel waneel sa nobel ku ne am na ku lay jooyloo ay ca leen mu neex ay ca leen mu neex El Hadj Dia bëgg ku bëgg El Hadj Dia yëkkati sa loxo da ci ba tagg gi dajal وروره الكيزبح وروره كدبح تبرد كدبح ورد الكيز ورد كدبح تبرد كدبح كزبح Alors c'est sur cette euh, très belle ambiance que se clôture euh, ce dîner de gala de présentation de la collection du styliste euh, Dia Fashion. Ça a été une très belle soirée avec euh, de beaux défilés de mots. Nous avons vu des styles euh, différents. avec euh, du beau monde euh, également, des femmes très bien habillées, avec euh, une belle ambiance, euh, un orchestre, avec de bons présentateurs. Et nous vous donnons rendez-vous pour une autre euh, cérémonie sur RTT la télévision qui donne la voix à la mode et à la création.